kinakilig Mo'y panimig Magandang niya pulay dal Fever bangi Ang limo andal Nanyo ang dukher kong jer Corona delay Mo'y panimig jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi ci teewlu bi ci rajo Afia FM 93 point 0 ñu nuyu ñëpp ñu leen asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Euh, am mbégte tey ñëw ànd ak yéen ci émission yi nga xamante ni ñëpp umpale wuñu jamono ji nga xam ne ci la nekk moo nekk euh, jamonoy euh, coronavirus bi nga xam ne mu ngi wéy kenn ku ci nekk am sa wàll secteur yëpp kenn ku ci nekk ak ni nga xamee ni noonu la gàllankooree ci sa wàllum liggéey waaye itam ci sa wàllum toogaay donc lu ne mel tax na tey nag ñu waxtaan jëm ca beneen fànn muy wàllum migration. Euh, bu ñu nee migration nag euh, wax itam li nga xamante ne nii mooy coronavirus donc am na loo xamante ni rapport la buy dox ci seen i diggante. ba tax na tey nag euh, Ramatoulaye Diène fas yéene dalal ñi nga xamante ni ay waay lañu. wala ay ndaw yoo xam ne rek ñu ngi yëngu ci wàllu migration ba tax na coronavirus bi am na yoon woo xamante ni day jug jëm ci mbirum migration ba tax na tey ñu leen fi dalal kon ñu fi dalal ñaari nit di Abdou Khadre nga bokk ci réseau boo xamante ni ci wàllu migration lay wax ak maamkat ci fàcc bi nga xam ni moom itam euh, ci lu ne mel lay yëngu tey nag ñoom la ñu am mbégte kon dañuy bàyyi suñu invité yi rek ñoom tamit ñun nuyoo bu ko defee ñu dikk ak yéen ci thème bi nga xam ni moom la ñu nar a waxtaanee lan moo ciy solo yi nan lañu ciy taxawee fas yéene cee dem ak yéen donc ñu bàyyi suñu invité yi ñu ndiroo euh, waaw jërëjëf Ramatoulaye ñoo ngi lay nuyu ni ñu gën a màgg gën sell di nuyu les auditeurs euh, de la rajo Afia FM euh, di nuyu aussi tous les sénégalais yi nga xamante bi ne ñoo ngi teewlu émission bii nii donc di wax ne aussi ñoo ngi nuyu franchement ñi nga xamante bi ne yëpp mooy le personnel sanitaire nga xam ne depuis mbas mi dal ci kaw Sénégal ñoo ngi def liggéey bu am solo wante aussi di nuyu tous les guéris de cette pandémie du coronavirus waaye aussi couche qui est muy les migrants ñi nga xamante bi ne soit mooy xam ñu ngi ci biir réew wala ñu nekk bitim réew wala même ceux qui sont xam ne bloqués ci réew yi par les mesures de frontière alhamdulilah di nuyu aussi suñu suñu ki ñu bokkal euh, waxtaan yi muy kat yi voilà merci. Euh, ñu fàttali yow yaa ngi bokk ci benn réseau boo xamante ni sànq maa ngi koy wax tudduma tur réseau bi mu déré mi euh, mën nga ñëw ci réseau bi aussi. waaw effectivement là aussi ñoo ngi nuyu tous les membres du Rewmi c'est-à-dire le réseau des étudiants pour la migration mu nekk cadre boo xamante bi ne ay étudiants ñoo ko composé essentiellement des étudiants yoo xam ne qui sont par la question de la migration ñoo ngi nuyu aussi baax a baax. Mhm. mais en temps aussi di nuyu ñi nga xamante bi ne ñooy suñuy partenaires di la fondation Rosa Luxembourg. Mhm. donc en particulier notre chargé de programme Fatou Faye. Mhm. donc ainsi que tous les acteurs euh, ñi nga xamante bi ñoo ngi œuvrer dans le domaine de la migration. merci beaucoup Euh, madame yi ñoo ngi lay nuyu madame Kati madame Kati yow aussi nga bokk ci beneen euh, kuréel boo xamante ni ñoom tamit euh, waxu migration la ñuy wax mu de MIGDEV euh, yow itam nga def rek ni sëñ Abdou Khadre def yow itam mën a wax ci MIGDEV un peu par rapport ak réseau bi nu mu tudd. waaw man maa ngi yëngu si benn association tudd migration développement bi nga xamante ne ñu ko créé depuis 2006 bu ñu xoolee ne migration clandestine bu mu commencé irrégulière bu mu commencé mooy ndaw yi nga xam jël gaal yi di di dem di dem Espagne si yoon bi ci lañ créé association bi. di xeex ak ak yelleefu mi kii euh, droit droit des ci lañ nekk di xeex daal di fexe itam di fexe di utal xale yi ay formation en entrepreneuriat pour ñu mën a am luñu jàpp ak yooyu ci loolu lañ nekk di yëngu mhm. ak tamit développement local tamit ñu si nekk tam di yëngu tamit merci beaucoup euh, ñu koy jaay jaajëfal bu baax maam Kati Fati moom tam mu bokk ci MIGDEV nekk comme ni mu ko waxee beneen réseau boo xamante ni ñoom tam ci wàllu migration lay waxee ni ñu ko waxee sànq tey ñu wax migration ak pandémie du Covid 19 lan mooy place su migrants yi ci gestion pandémie bi nga xamante ni ci lañ nekk mu nekk sujet boo xam ne moom lañ bëgg waxtaane alors Abdou Khadre mu nekk euh, thème boo xamante ni defe naa buñ ko ubbee sax mën nañu ci def. dayo boo xamante ni ah dinañu ko ci def te du jeex ndax defe naa wàllu migration nekk na loo xamante ni lu metti la bu ci pandémie dolli koo cee day nekk leneen beneen métti léegi gestion boobu lañ bëgg a waxtaanee tey eh, lan mooy place migrant bi ci biir gestion bi ak yow ban gestion ngeen yaakaar ni foofu la ñuy xaar migrant yi Abdou Khadre merci beaucoup Ramatoulaye ci question bu am solo bi comme je pense ni ñu ko waxee au début que migrants yi ñu ci ëpp tey dañuy vivre dans des conditions extrêmement difficiles donc ci moo xam ci réew yi ñu nekk wala moo xam fii ñu nekk ci suñu biir donc surtout nag li nga xamante bi ne mooy mbas mi bu ñëwoo dal ci kaw àdduna bi dalaale ci kaw migrants yi donc du def lu gën a metti donc looloo waral euh, le réseau des étudiants pour la migration donc andi thème yooyu pour fas yéene ko waxtaane mais surtout aussi pour associer tous les acteurs migrants ba nga xamante bi ne coono bi nga xam ne migrants yi ñoo ngi koy daj ñu mu mën a wàññeeku parce que il faudrait que les acteurs s'impliquent davantage donc loolu aussi mën nañ koo jàngat ci ay fànn yu bari bi ci jiitu mooy bu ñu waxee gestion de la pandémie du Covid-19 ça peut pas se faire sans pour tenir compte des droits des migrants mm-hmm. donc parce que xam nañ ne c'est une couche vulnérable loolu nag euh, euh, ñu koy natt ci ay tànk yu bëree bari bari bi ci jiitu mooy c'est-à-dire la situation des émigrés parce que boo jëlee terme migrant dafa nekk terme bu large dafa englobé ñi nga xamante bi ne tey dañu jugee ci réew mi dem ci yeneen i réew mhm. ñu leen woowee les émigrés mhm. waaye aussi dafa englobé ñi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen i réew ñoo fii ci suñu réew ñu leen woowee les immigrés mais surtout aussi am ñoo xamante bi ne dañ doon dem ci yoon ñu bloqué wu ñooñu aussi ce sont des migrants mais sans compter aussi ñenn ñi nga xamante bi dañoo jógee ci réew ngir daw làqu ñu lu mooy les mhm. donc mu nekk vraiment une population assez large mais aussi assez complexe mhm. mais qui vivent aussi dans des conditions ñoom ñëpp dans des conditions extrêmement difficiles donc fànn bu ci nekk rek gis nañ ne ñoom peut ni ñu ni nga xam ne noonu résoudre wala noonu lañuy essayer résoudre le problème de la pandémie dañoo dem ba def un constat avec des études ñoo xam ne ñiikat dafa mel ne ku ñu ñu fàtte ci li nga xamante ni moom mooy gestion pandémie bi li ya waral le réseau des étudiants pour la migration jug ngir xeex loolu waaye jug aussi pour alerter ñi nga xam ne ñoom ñooy les décideurs waaye aussi impliquer les acteurs pour que ces couches là vraiment soient pris en compte dans les systèmes de riposte contre la pandémie du coronavirus. effectivement mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ñu mënta dindi lay nekk parce que boo xoolee ci fànn yooyu nga xam ne yëpp ñoom la migrant di sonal kenn ku ci nekk euh, Covid bi am na gestion boo xam ne xëy na doon nga ko xaaree wala bëggoon gën ñu doxalee te xëy na amaana demeewul noonu soxna fa euh, kati euh, ndax doxalin bi nga xamante ni moom la ñu yëkkati ci wàllum pandémie bi bi mu amee ak léegi. yéen ñi nga xamante ni yéen ngi jege migrants yi ñenn ñi ci ndax yéen sentir ngeen ni wala yëg ngeen wala gis ngeen ni migrants yooyu am na taxaw boo xam ne ñu ngi koy am ci ñoom. waaw Ramatu Ramatulaay question bi ma laaj damay sawar ci tool si daal parce que ku xam na ku nekk am nga mbokk boo xamante ne mi ngi migré nga dëkk. am na ko xamante ne mu ngi jógee beneen réew ñoo def ak yow mu nekk sous région bi wala tam mu nekk tam ku jógee tam beneen réew te ñëpp mu impacté sur migrants yi gis nañu ko te gis bi nga xam ne dañu nekk ci biir nekk bitim na affaire bi metti na bëgg nañ ñëw mënuñu ñëw ma daal ñi nga xamante ne dañ tam am tam problème tam pour lu ñu dundee wala problème fay seen location ak yooyu parce que gis nga waxoon nañ ne dañuy dañu attribué ay aide ñooñu te gis nga ne ba léegi

ba donc nekk na loo xam ne aussi lu am solo la Abdou Khadre par rapport ak li nga xamante ni moom la maam Kati wax léegi. waaw comme ni ko soxna Kati waxee rek loolu la si la constation c'est général situation bi nga xam ne migrants yi ñoo ngi koy dund dans le cadre euh, de cette pandémie mu nekk lu doy waar lu metti loolu. loolu sax dem na ba ñi nga xam ne bi ñu ñoo ñooñu les analystes dañuy wax ne euh, on est quitté d'une crise sanitaire à une crise de mobilité. donc suñu waxee loolu waa une migratoire parce que euh, rien que rek pour situation bi nga xam ne migrants yi ñoom ñoo ngi koy dund mais may fàttali rek ne eh, eh, boo gisee loolu euh, en tant que organisation de la société civile qui est le réseau des étudiants pour la migration bi ñu constaté dañu def une vidéo boo xamante bii ne dañ ko tuddee euh, le corona la coronavirus plutôt et li nga xam ne mooy pandémie Covid 19. donc à travers cette vidéo on a essayé de yi nga xamante bi ne tey euh, migrants yi ñoo ngi koy dund mais surtout aussi leur famille parce que aussi bu ñu fàtte ne migrants yi dafa nekk benn population boo xam ne bu am solo tant ci ci ci ci biir askan yi waaye aussi ci koom-koomu réew mi ndax il me plaira ma fàttali ne boo xoolee migrants bi rien que pour ne l'année 2019 envoyé nañ plus de 1000 milliards te boo jëlee budget du Sénégal mu nekk 4000 milliards donc mën nañu wax ne le quart du budget du Sénégal est alimenté par les migrants te boo xoolee loolu non seulement day impact ci côté social mais surtout aussi ci côté économique donc waaye aussi ñu war nañ ci famille migrant yi nga xamante bi ne tey xañ na seen euh, doom yi wala seen papa yi dañoo nekk bitim réew di liggéey ñu gis ne famille yooyu dañu nekk dans des diffi dans des conditions extrêmement difficiles ngir liggéey migrants yi boo xoolee ñu ci ëpp perte nañ seen liggéey ñii liggéeyatuñ parce que ils sont confinés ainsi de suite on a essayé de montrer ça à travers cette vidéo waaye surtout aussi montrer que les migrants font l'objet de stigmatisation mhm. ndaxte boo xoolee au départ ñun ñëpp gis nañ ko Sénégal ñuy wax mooy moo Modou yi ñoo fi andi. ñoo fi andi coronavirus comme a am euh, mhm. comme ni ko Badara di waxee rek ci suñu biir mi mu ne les migrants les migrants qui étaient de ressources tey ñu leen di xoolee comme étant ñoo xam ne porteur de virus ñoo ñu andil feebar bi mu nekk gis-gis boo xam ne dafa metti woon lool ñaawoon lool wante réalité bi dem na ba ñu wane ne tout récemment on a ministère de la santé mhm. génn wax ne boo xoolee parmi les cas contaminés les migrants ne comptent que 2 pour cent dans nga loolu c'est minime alors que gis nga ne ñu ci bari tey bu ñu jógee bitim réew sax ñemewuñoo génn mhm. alors que euh, mu nekk situation boo xam ne lu metti woon la lu difficile la moo taxoon le réseau des étudiants pour la migration en compagnie avec le MIGDEV mhm. ak aussi yeneen euh, acteurs yi ngir ñu jóg ngir xeex loolu mhm. xëy na loolu nag di law di law di law ba fii waaye teewul ne ba fi mu toll nii situation bi gën a métti ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy migrants yi. parce que ba fi la mais euh, am na lenn loo xamante ne naam comme di nga yëngu ci wàllum yoon. Mhm. migrants yi ce que amul loo xamante ne ni yoon moom la leen a may. balaa ñoo yegsi ci jamono yu toll nii yoo xamante ni nii day nekk seen droit d'office. mais effectivement parce que boo xoolee euh, xañ na cadre émission bi du ko may waaye mhm. boo xoolee Sénégal dafa am lu ñuy wax tuddee ay obligations internationales euh, signé ay convention yoo xamante bii ne ay convention yu réew yëpp signé Sénégal signé ko ak i naataangoom mhm. ci convention yi mën nañ ci lim la convention boo xam ne ça date de 1962 euh, qui est la convention euh, relative à l'égalité des traitements mhm. euh, mu nekk convention boo xam ne Sénégal signé na ko mhm. waaye aussi Sénégal signé waat beneen convention boo xam ne dafay protéger li nga xam ne moom mooy migrants yi ak leur famille même boo jël dans cadre régional en protocole de la CEDEAO qui a été signé boo xoolee même dans nos législations internes mhm. qu'il soit dans le code du travail qu'il mhm. soit euh, ci code yu bëree bëri bëri dañ fay fekk ay dispositions yoo xamante bi ne dafay jox une protection particulière aux migrants et alors qu'on a vu dans le cadre de ce contexte tey euh, articles yooyu ak dispositions yooyu ak convention yi nga xam ne Sénégal si na ko te gis nañ ne franchement ça n'a pas fait l'objet de respect. effectivement donc loolu impacté bu baax a baax. ci li nga mm-hmm. xamante bi ne moom mooy. nekkinu migrants yi kon suñu suñu du du la raison pour laquelle ñun suñu thème bi nga xamante ni tey moom la ñuy mu nekk li nga xamante ni mooy place migrants yi ci doxalinu euh, pandémie bi donc kon mën nañoo jàpp entre guillemets que migrants yi euh, daanaka seen i àq ak yelleef la ñu ci respecté des naa bari bu ñu xoolee rek euh, lu njëkk ak lu gën a néew mooy ñàkk respect bi nga xamante ni am na ko maanaam sàngee wu ñu leen je vais pas dire sutura mais am na index bu nu ñu leen di indexé wee noo xamante ni rek seen xel rek ñun ñun ñun ñun salfaañe nañu ko. mais bien sûr bien sûr bien sûr parce que boo jëlee tey xool sénégalais bi nga xamante bi ne tey dafa am jàngooro ji bët bi ñu koy xoolee mooy xaw a tane que migrant bi nga xam ne dafa am jàngoro bi. Mm-hmm. donc loolu mu nekk violation des droit te boo xoolee bu ñu signé protocole de la CEDEAO réew yëpp dañ ne boo xoolee réew yi amatul ay frontières. Mm-hmm. daanaka ki jóge Guinée ñëw Sénégal. ak ki jóge Mali ñëw Sénégal moo ko sénégalais ñoo yem. Mhm. képp ci ci à tous les niveaux nag au niveau du traitement au niveau de l' accès à l' information. Mhm. au niveau de l' accès aux soins médicaux ainsi de suite ainsi de suite. mais boo xoolee loolu ça kenn respecté ko ci li nga xam ne moom mooy cadre corona bi. Mhm. d' on a fait des interviews avec des migrants. avec des immigrés yoo xam ne ils vivent au Sénégal. te ma fàttali ne ici boo jëlee rien que les les immigrés. Guinéens les immigrés de la Guinée-Bissau les immigrés du yi les immigrés de la Mauritanie mu nekk les pays limitrophes ils font 66 pour cent 66 pour cent de la population immigrée au Sénégal donc sa veut dire téeméer yoo jël juróom-benn fukk ak juróom-benn yëpp daanaka ay immigré lañ euh, yoo xam ne ñoo ngi jógee ci réewu limitrophes yi pour wane leen c'est telement important mm-hmm. il faut que cette population vraiment soit encore impliquée il faut que ñu tenir en compte ci mesures yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy jël. Mhm. voilà euh, soxna Kati dégg nga li nga xamante ni moom la Abdou Khadre wax mais aussi foofu am na euh, ñeneen ñoo xamante ni muy immigré yi ñi nga xamante ni dañu daw làkku nekk fii soit daw làkku wala ñi nga xam ne sax dañoo ñëw fii ci biir Sénégal rek jugee comme suñu dëkk yi nga xam ne ni ñoom la ñu ñoom la ñu nekkal ak i frontière ñooñu jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ko est-ce que ngeen di jël en compte euh, ñooñu nga xam ne moo di immigré yi. li nga wax dëgg la parce que ñun dañoo xool ñun ñun Sénégal dañu ko woowee dëkku teraanga parce que xool tey boo xoolee tey guinéen ñu ngi fi ak dund ak ñun ivoirien ñu ngi fi xam nga congolais ñu ngi fi bëri nañ daal parce que boo xoolee pays africain pays de la sous-région yëpp boo xoolee Sénégal la ñu gën a sawar a dem ko yeneen dëkk yi mais tam affaire kii bi euh, affaire Covid 19 bi dafa am tam benn benn benn kii nu sax dafa kii daal daf leen gàllankoor baax parce que yaa tey Sénégal ak ak Guinée tey nu ñu wala Sénégal mooy tey nu ñu jegantewee mais pourtant tey. guinéen tey mu bëgg a dem Guinée tey dem dem dem dëkkam mais mënul dem dëkkam ndax kii ndax euh, frontière yi nga xam dañ kaa tëj xam nga tam nit ku nekk tey ku nekk tey boo sañoon tey fi nga nekk war nga am ay ay ay sañ-sañ yoo xamante ne saa yoo bëggee déplacé wu mu yomb si yow parce que ñëpp xam nañ ne déplacement migration droit la pour tout le monde mais nañ dem instant nga xamante ne nañ dem tey ba kenn mënatul déplacé tey kenn mënatul dem mhm. waaw ñu dem ba kenn mënatul ñu ngi nekk ci réew mais ñu ngi fi jànkonte lay jafe-jafe waaw ñu ngi jàkkoonte jafe-jafe parce que xam nga tey jii tey boo xoolee tey exemple laa joxe ñu baal ma nag sama mbokk Guinée parce que nga nga jógee Guinée nga nekk Sénégal xam nga doo am doole sa doole demee noonu parce que dëkkoo si réew mi xëy na amoo fa mbokk yoo xamante ne tey mën nañ la soutenir déjà tey gis nga impacté sur le tra sur le plan boo xoolee tey ñu bëri tey seen liggéey dafa wàññeeku seen quantum horaire dafa dafa wàññeeku bu baax a baax ku doon liggéey tey seen revenu seen revenu tam même ko def dafa wàññeeku tamit effectivement léegi boo xoolee tey par exemple tey nga dëkk tey si kër tey tey nga nekk fa en location tey mhm. location di la xaar nga war a fay location mhm, war a fay mhm. sa dund xam nga te seen revenu wàññeeku bu baax a baax tamit loolu dafa nekk impact loolu dafa metti daal ñu ngi tenir en compte te ñu ñu siy xeex tamit ku xool tamit def tam ba jàppale leen tamit ku ñu génn situation yi metti yooyu ñu nekkee ndax boo seetoo lenn rek par exemple suñu quartier yi nga xamante ni ñu ngi séddale aide alimentaire bi da ngay gis ñoo xamante ni dalay leer ni kër gi say dëkkandoo lañ seeni doom yu am fukki at ak juróom-ñett wala seen doom yu am ñaar fukki at wala fanweeri at fa la juddoo mais bu séddalee ko jotee ah ñëw nekk ca commission yi la ñuy wax dañuy xalaat ne ah ñoom kat est-ce que daal di leen dee xaw a beddi beddi boo xamante ni nii comme yow li nga wax nii muy ay jafe-jafe eh, duñu ci tenir compte loolu aussi bokk na ci doxalin bi nga xamante ni xëy na jafe-jafe la ci immigré yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi. waaw loolu jafe-jafe la boobu mais ñun ñun personnellement ñun fekkee ñun comme suñu suñu commune moom mhm. dañoo tëdd jaaxal naaj daal xam nañu réalité yu kii parce ñun mhm. waa mhm. tamit nga xamante ne nekk acteur pour ñu mën leen jàppale loolu tam ñu si à chaque fois ñu si di si jóge di si dox defe naa loolu bokk na ci li nga xamante ni moom la xaar ci yéen mooy ñi nga xamante ni ay organisation la nekk ci société civile ñëpp mais rawatina ci ñi nga xamante ne nii dañoo jëg di yëngu ci wàllu migration ba tax na jafe-jafe bu mel nii bu amee ñoom itam bu ñu gisee ñu mel ni Rémi wala ñu mel ni MIGDEF wala ñu mel ni ay volontaire wala ñeneen ak ñeneen dañuy sawar pour mën a ñoo ñu jóg am tànk boo xam ne moom la ñu leen taxawal ñu fàttali ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu ngi ci Afia FM 93 point 0 euh, ñuy waxtaan tey li nga xamante ni rek mooy euh, place su migrants yi ci biir gestion bu pandémie bi nga xamante ni moo di Covid 19 moom la ñuy waxtaanee di fi dalal tey waa MIGDEV di migration et développement ak waa REMI di réseau des étudiants pour la migration nekk euh, émission boo xamante ni ñu ngi ko am ci ndimbalal fondation Rosa Luxembourg tax na tey ñu ko fi waxtaanee ci biir rajo Afia FM. 93 point 0 donc Abdou Khadre damay ñëwaat tuuti ci yow euh, par rapport toujours ak euh, gestion bi nga xamante ne ni euh, moom mooy mbirum pandémie bi place su migrants yi bu ma dégluwee sànq li nga xamante ni moom nga jukkee wax ko tàmbalee ko dafay mel ni migrants yi tey ji ñoom place ba nga xam ni moom lañ waroon am ci biir doxalin bi wala fañ waroon toog dafa mel ni loolu dafa naax saay bu dee mën nañ ko waxee noonu waaw je pense que mën nañu wax ne dafa naax saay effectivement parce que boo xoolee la migration il faut le rappeler c'est un droit c'est un droit. Mm -hmm. et fondamental un droit boo xam ne reconnu tey comme ni ma ko waxee sànq par toutes les conventions internationales euh, mu nekk dem ak dikk bi waaye aussi Sénégal ratifié ko ma koy waxee saa su ne rek am le droit de de d'établissement le droit de séjour ainsi de suite mu nekk droit boo xam ne c'est un droit qui est donc kon je pense que euh, dafa nekk loo xam ne. Mhm. Euh, askan wi waaye dirigeants yi waaye acteurs yi ñëpp dañ ko war a jël en mhm. li tax may wax ne dafa nax saa yi ñaar la boo xoolee ca ginnaaw fan yële ca ginnaaw. Mhm. ñi nga xamante ne ñooy haut commissariat des droits de l'homme ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'organisation internationale pour les migrations. waaye aussi ñi nga xam ne ñooy OMS l'organisation mondiale de la santé dañu booloo def un communiqué conjoint mhm. ci biir communiqué boobu ñoom ñooy reconnaître ne vraiment euh, dafa am benn manque d'une approche Euh, ci nii nga xam ne noonu la ñu gérer pandémie bi ci côté migrants yi donc kon loolu mu nekk une reconnaissance de taille boo xam ne ce sont ces organisations internationales ñoom ñoo ko reconnaître xam ne wax dëgg yàlla nii ñu gérer mbas mi euh, jëluñu en compte li nga xam ne moom mooy les droits des migrants waaye aussi nga ñëw au niveau national nous avons déploré effectivement qu'il n'y a pas une, synergie d'action donc des, des, acteurs de la société civile pour faire quelque au niveau des migrants. Ça n'existe pas. À moins, moi en tout cas, je ne au courant raison pour laquelle même nous avons essayé de faire ces émissions là sensibiliser pour stimuler effectivement donc euh, li nga xam ne moom mooy loolu pour nit ñi mën a jug taxaw. Mhm. booloo takku nekk benn su ci nekk société civile jéem a dimbali li nga xam ne moom mooy migrants yi. d'ailleurs ci cadre boobu on a fait ce constat dans le cadre d'un article. qui est intitulé euh, La migration et la pandémie du covid la protection des immigrés au Sénégal. À travers cet article, on a essayé de montrer mhm. que les immigrés au Sénégal n'ont pas fait l'objet, mhm. effectivement, de protection. Euh, pas fait l'objet de protection. Mhm. Son akati mi koy wax xëy na waa yaraax dañu baax lool ñoom ak waa MIGDEV xëy na loolu waral mais ñun dans le cadre en tout cas de nos quartiers respectifs avec les quelques études ak les témoignages a dans l'aide alimentaire les immigrés ne sont pas pris en et pourtant comme ni nga waxee sànq bokkul na ci loo xamante ni koom-koom bi la ñu participer bari loolu. Euh, mais mais effectivement parce que les migrants quand ils sont mais ils paient des taxes il a des secteurs clés de l'économie aujourd'hui qui sont gérés uniquement par les migrants par les par mais la distribution du pain là. vous ne verrez jamais un Sénégalais yor pousse-pousse dem di yóbbu mburu jamais au plus grand jamais mais allez à la Sandiniéry vous allez voir que ah, effectivement euh, euh, tout ce qui est euh, je veux euh, mhm. partout encore prenez n'importe quel secteur mhm, mais les lingeries là vous ne jamais un Sénégal ubbi boutique ne day fóot ay yére donc pour vous dire que ñoom ils font partie de nous mhm. surtout plus qu'aujourd'hui li ñuy wax en fait le monde est un village planétaire donc ce qui fait que à mon et je pense que loolu le plus rapidement possible il faudrait que les migrants les immigrés soient pris en compte dans les différents plans de ah, riposte. ah xanaa du wax euh, ci yey ñëw kay est-ce que du ñu wax ci yey ñëw parce que boo seetloo ah euh, li gënoon si si yaakaar li nga xamante ni mooy parti bu ci gënoon a kii metti ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ko commencé di bàyyi comme comme yolomal nañ ko duñ koy waxee oyofal nañ mbir yu bari maanaam dem beeg dikk bi bu demee ba yolomal ko euh, est kon pour ndimbal googu wala taxaw wala appui bi ñu waroon def ci diggante ak migrants yi ci biir gestion bi weesuwuñu loolu nga yaakaar. je pense qu'il n'est jamais trop tard bien faire. Mhm. Euh, euh, d'ailleurs hier j'ai entendu à travers un communiqué euh, pour la commission bu la riposte pandémie ñu ne mhm. ils ont encore augmenté cent mille pour l'aide alimentaire. donc nous on doit plaider à ce que ces cent familles ces cent mille familles là qu'on y mhm. inclue effectivement les familles migrantes que ak suñu dirigeants yi c'est pourquoi d'ailleurs euh, j'aimerais bien rappeler que parmi les objectifs phares du réseau des étudiants pour la migration mhm. on a dit que euh, am na ci boo xam dañu il faut alerter les décideurs et éveiller les migrants c'est-à-dire les décideurs par rapport à la décision yi nga xam ñoo ngi koy jël mhm. euh, du point de vue de la migration mais aussi surtout sensibiliser davantage les migrants mhm. ñu xam lan mooy seen i droit lan mooy seen ak lan mooy seen i yelleef donc boo xoolee tey jii adduna a en Italie. Mm-hmm. hier j'ai entendu que j'ai eh, vu eh, euh, le consul bi nga Sénégal bi nekk Italie. Mm-hmm. ñoom ñoo ngi def tout parce que le gouvernement italien nee dafay régulariser. Mm-hmm. près de huit cent personnes. près de huit cent personnes. donc pour vous dire que aujourd'hui àdduna moo toll foofu. effectivement tey quand difficile on court vers les migrants. mais quand tout est ok. Euh, voilà donc euh, on ne leur donne pas de visa on ne leur donne pas de papier. <laughs> nit daal balaa moo xam la koy jariñ rek mu soxla ko daal kon loolu ni ko wolof di waxee balaa ngaa xam la lay jariñ rek nga soxla ko euh, te defe naa comme ni ngeen ko waxee noonu migrants yi nekk nañ ñoo xamante ni ni ñu a bàyyi xel lañ que ça soit émigré yi ñoo génn nekk bitim réew soxnakat dégg nga li nga xamante ni moom la Abdou Khadir wax ñoom ci biir waxtaanam dégg naa mu ne def nañ article def nañ li nga xamante ni aussi mooy vidéo lépp ngir mën a fexe ba ñi nga xam ne ñooy décider ñu xam lan mooy àq ak euh, yelleef ci jëm ca ñooñu waaye itam ña ca des itam xam ñoom lan lañ war a dem laaj ji ak lan moo cay seen wareef est-ce que yéen Midev par rapport ak activité yi jëm ci doxalin bi am na loo xam ni def ngeen ko jëmale ko ci migrants yi. duñ si loolu parce que démb rek. ci lañ nekkoon dem def naa ba 19h ba ni ma wax ak yow rek ñu ngi ñu ngi fexe pour 50 familles migrants. Mhm. yi nga xamante ne dañoo nekk au Sénégal ku nekk am un un kit un kit mhm. alimentaire. Mhm. gaar nag bëri parce que personne bu nekk war na bénéficier. à hauteur de 30 000 la somme famille. Mm-hmm. gaar nag bëriwul nag mais na suñu kii fa la fa la donc ngeen au moins loolu ci biir yaraax la rek wala ci biir au niveau national ci ci ci Sénégal au niveau national avec avec avec avec un ok ah macha allah nekk na loolu kon lu am solo ndax ñoom itam xam nañ jamono ji xeex bi nga xam ne yéen yéen a koy xeex jëmale ko maanaam porté ni ngeen porté wee seen voix ndax ñoom migrant yi sentir nañ loolu maanaam immigré yi nga xam ne ñoo nekk fii sentir nañu ni yéen a ngi xeex jëmale ko wala ñi nga xam ne ñoo fi jóge dem bàyyi seen njaboot ñu ni yéen a ngi taxaw ngir période bi ñu toll ñoom ñu mën a am taxawaay yi ci seen ginnaaw. waa ñun ñun chaque jour ci loolu lañ ne parce que ñu ngi am partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg bi nga xamante ne ñoom chaque jour dañu xool difficulté migrants yi la ñuy xool dañuy xool personne dañuy xool migrants nga xam ne nekk en difficulté ñu fexe ba xool ñu xamante ne ñu ñu revenir ñu nekk en kii daal ñu wàññi seen difficulté yi ñu nekkee. ci loolu lañ nekk di xool chaque jour parce xoolee ñun fu ñu toll ñu ngi ñu ngi liggéey di saytu di xool migrants yi côté bu ñu nekkee parce chaque jour ñu ngi woote ñu nekk ñi nga xamante ñoo nekkoon Maroc di alerter pour ñu dimbali leen pour ñu ñib si nekkoon si condition yu metti ñu ngi boo xoolee am na ñoo xamante ñoom di xool ba xam fu ñu mën a orienté bi fa nga xamante ne ñooy mën nañ leen dimbali ñu ñib si waat mhm. di woo tamit di xool tamit parfois tamit euh, migrants yi nga xamante ñoo nekk euh, États-Unis am na quelques-uns yi nga xamante nii jotoon nañ seen seen seen aide bu ñu leen alloué par le mm-hmm. président de la république Macky Sall mm-hmm. ñi nga xamante ay quelques sénégalais la woon jot leen via ñu envoyé leen seen aide yi via par des virements bancaires lañ leen envoyé woon daal

ngeen ci nekkee mais ñoo xamante ne xëy na gëj nañ leen a gën nañ leen a jekk taxawaay wala xëy na seen làmmiñ mu ngay dem foo xamante ni seen i bos demu fa ndax yéen a ngi jéem di jokkoo ak ñu ne mel pour mun a fexe ñu trouver ay solution wala ñu impliqué wala ñu taxawaayal defaraat taxawaay bi par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lañ war a jox seen ak ak seen yelleef mu di leen migrants waaw effectivement soxna soxna Ramatulaay mais permettez-moi encore ma Euh, euh, soxnakat yi ci liggéey bi nga xam ne mi def mi ngi koy def parce que dafa nekk lu am solo donc je pense que peut-être ku ci nekk rek bu defoon noonu xañ na migraay situation bi nga xamante bi ne ñoo ngi ci kon tey mën naa gën a améliorer wu donc kon vraiment nous vous nous vous nous vous remercions sincèrement di wax ne continue ñun ñëpp ñu ànd ensemble continuer ci loolu dina améliorer sensiblement le sort des migrants. donc loolu nga wax noonu soxna Amataay boo xoolee mm, ci cadre boobu moo tax mm, parce que le réseau des étudiants pour la migration avait un programme bien défini. donc qui était différent euh, ak programme bi nga xam ne ñoo ngi koy déroulé nii la aussi j'aimerais remercier la fondation Rosa Luxembourg parce que après on a dañu permettre ñu réorienter suñuy activité jëmale ko uniquement ci cadre pandémie bi pour xool comment fair pour sensibiliser pour alerter pour que les migrants soient protégés donc lii moo waral donc ñu am possibilité bi leneen li boo mooy li nga wax ni sànq effectivement émission yi ñuy def nii bokk na ci loolu parce que bëgg nañ tey jii acteurs yëpp bu ñu ko déggee xam ne ah migrants yi temps à que ñu booloo jàppale leen. Mhm. ngir seen situation gën a amélioré wu. Mhm. déjà wax naa tout à la vidéo bi nga xam def nañ ko. Mhm. def nañ ko sur nos différents de communication. fondation bi def ko ci différents supports de communication ñu koy tas pour que nit ñi xam effectivement pour que ku ci jot xam ne il est temps à ce que ñu booloo jàppale ñi nga xamante ni moom mooy les migrants. Euh, donc boo xoolee aussi on en train de toucher pas mal de partenaires. ñi nga xam ne ñoo ngi bi di ci yëngatu. donc ñoo ngi def une un cadre fort. Mhm. Euh, boo xam ne dinañu permettre effectivement ñu mën a. dimbale de façon conséquente ñi nga xam ne moom mooy les migrants mhm. d'ailleurs il y a pas mal de euh, boo xoolee la Badara de Diadem euh, nous sommes en train de discuter avec les différents associations des étudiants des des des des immigrés ñi nga mhm, xam ne bi ne ñoo ngi fi tey comme boo jëlee l'association des des étudiants béninois au Sénégal ainsi de suite on est de prendre contact pour essayer quand même de créer un cadre qui permettra tey bu ñu yuuxoo ñëpp dégguñu mhm. pour que ñu mën ñëw en aide mais mhm. damay wax aussi comme ni ko soxna kat yi waxee mhm. parce que aussi quoi qu'on puisse dire il faudrait être réseau le réseau pour la migration MIGDEV e ce sont des associations de la société civile yoo xamante bi ne peut-être ñu tetee l'aide de la fondation Rosa Luxembourg xëy na peut-être dina xaw gën a difficile donc mais il d'autres organisations vraiment qui doivent s'impliquer par exemple bu ñu jëlee ACR. au commissariat des réfugiés ak même OIM e y a des programmes yoo xam ne mën nañu ko développer encore davantage mhm. pour vraiment ñu créer horizon sans frontières mhm. pour notre papa euh, comment il s'appelle encore donc sëy et ce suite vraiment vraiment il a pas mal d'acteurs qui sont là et qui nous entendent mhm. et on aimerait bien que toute cette force là soit réunie pour le bien des migrants pour le bien des migrants ñu fàttaliwaat ñi a 93 point 0 di waxtaan li nga xamante ni rek mooy wàllum euh, mbas mi nga xam ne mu ngi ci réew mi ak euh, migration maanaam euh, xool la nooy place migrants yi ci biir gestion bu pandémie bu Covid 19 bi tey loolu lañ fiy waxtaanee di dalal waa MIGDEV. ak euh, waa réseau des étudiants pour la migration ñu am mm, bile émission ci ndimbalal fondation Rosa Luxembourg ñu yombalal ñu ko ci rajo Afia FM donc kon moo tax tey ñu toog fi di waxtaanee lu ne mel donc Abdou Khadre li nga wax léegi nekk na loo xamante ni lu am solo la essayer de voir comment gën naka la ñuy def ba gën a mën a yokk doole yi gën a mën a yokk force yi pour que li nga xamante ni moom la ñuy xeex nekk loo xamante ni ñaanuñu yàlla mais leneen lu mën a xew ci réew mi ñu xam place la ñi nga xamante ni ñoo di migrants yi di am ci mbir moomee ndax nag koo xamante ni dala fiy nekkal moom itam yaakaar naa ni nekkal ko fi day nekk droit finalement Euh, donc Abdou Khadre bu nu ñëwaatee tuuti ci place bi nga xamante ni rek moom la migrants yi di occupé par rapport ak euh, situation bi nga xamante ni nii ci la ñu toll defe naa euh, ñoom itam nekk na loo xamante ni nii xëy na comme ni ko ni ko kat yi waxee sànq difficulté yoo xamante ni rek ñoom ñi ngi koy dund jamono ji ba nga xamante ni dépassé na leen ba tax yéen ngeen fas yéene porté seen i voix yenn combat bi fas yéene mun a fexe ba ñu respecté leen lu ne mel ndax yéen gis ngeen ñenn ñoo xamante ni soit des juristes hormis yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci ay association wala ci ay réseau wala ci ay euh, lu mel ni euh, société civile bi ñoo xamante ni dinañu wax ba wiiree ci li nga xamante ni wàllum yoon ak ak yelleefu migrants yooyu noonu ndax di ngeen koy sentir un ci terrain bi ak ak gestion bi nga xam ne moom lañ téyee Covid bi gis ngeen benn instant ñoo xamante ni soit wàllum yoon sax ñi ko yor ñu ngi bàyyiloo xel migrants yi ñu ñuy respecter seen àq ak seen yelleef loolu moom mm, en quelque sorte euh, à part li ma ko waxee sànq les communiqués conjoints qui ont été par les organisations internationales à part ça vraiment peut-être gis naa vraiment Horizon sans frontières ak peut-être bëriwuñ ci bi nga xamante bi ne parce que aussi ce qu'il faut dire mooy. tey boo xool la pandémie a fait beaucoup de morts au niveau des migrants aujourd'hui on calcule près de cinquante sénégalais yoo xamante ne ñàkk na seen bakkan ci ci ci ci ci li nga xamante bi ne ñoom moom mooy mbas mi ci bitim réew déjà gis nga le président avait pris tey benn décret boo xam ne pour bañ ñi nga xamante bi ne tey dañoo faatoo foofu ñu andi leen mu nekk ay situation yu difficile et même souvenez-vous boo xoolee c'est-à-dire cette crise économique là peut-être suñu réglé woon ce appelle la crise de la mobilité ba léegi rek dañ ko souvenez-vous les treize étudiants qui en Wuhan mm-hmm. tey peut-être mu nekk ay questions yoo xam ne mm-hmm. c'est des crises yoo xam ne dañoo duggalante ça veut dire que si on arrive à régler les questions migratoires mm-hmm. peut naa bañ a yegsi nekk ay difficultés yoo xam ne ñoo ngi koy kii mais ci côté boobu vraiment il faut le dire que nous avons été vraiment un peu un peu un peu un peu maanaam taxawuñu taxawu biñ ci bi ci war carrément dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñi ci alerté aussi bëriwul à part que parce que dañ naan dañuy xaar ba jaan ji romb ñu dóor ci waru ñu ñu ñu topp ci dóor il faudrait que ñu dégg ne y a tant de morts au niveau des médias pour que ñu doog a agir te loolu c'est pas bien je pense que il faudrait surtout nga am c'est-à-dire ce qu'on appelle d'alerte et je pense loolu moo xaw a manqué notre société civile mm-hmm. tant que dégguñu ne tant de Sénégalais faatu nañ wala tant que dégguñu ne y a des migrants qui sont bloqués pendant un mois deux mois parce que comme euh, ni nga ko waxee defe naa defe naa problème mu migrants a nekkoon Chine bu fekkoon te ni woon xëy na am na taxawaay buñ ca amoon euh, mën nañu amaana mën nañ bañ a si fii wala bu ñu fi yegg si dinañ xam nan lañ leen di taxawoo ñoom migrants yi. Eh, eh, merci beaucoup c'est ça donc eh, je disais que tout à l'heure il y a des migrants en a en Libye nga xam ne un pays qui déchiré. Mhm. il y a yoo xam ne qui sont bloqués mhm. boo jëlee dans le Sahara il y dans la mer comme ni ñu ko waxee air terre mer fépp foo xamante ne tey nit a fay aw boo demee tu trouveras des migrants ñi ko war a dénoncer nag mooy ñun la société civile et au devant donc ñi nga xamante bi ñoom ñooy les grandes organisations donc ñu gën a davantage mi ngi am mais de façon très timide pour répondre à question ñi nga xam ne ñoo ngi jug di alerter sur les droits des migrants par rapport ak loolu aussi euh, sentir ngeen loolu yéen itam ndax yéen weetu leen ca liggéey ba loolu maanaam bëgg fexe ba migrants yi maanaam immigré yi nga xamante ni ñu ngi fii ak sax ña dem ñu fexe ba euh, seen place ñu téyel leen ko ba mu mel na mu war a mën a mel yaakaaroon ni lu lu ne mel itam moom sooxe na bu baax a baax waaw soxna Ramatulaay damay rejoindre un peu Abdourahmane Abdou Abdou lu mu wax rek parce que boo xoolee affaire bi ça a surpris tout le monde daal moo tax affaire bi mënoo jël réellement comme mënoo jël euh, kii mënoo jël taxawaay yu ci war parce que affaire dafa bett nit ñi ak loo xamante ne mun prévoir ko daal loo xam ne la bett mënoo mënoo jékki-jékki rek automatiquement nga trouver la solution il faut nga ramper ndànk-ndànk pour trouver ko mhm. dañu nekk tam di kii ak benn association boo xamante benn réseau boo xamante am na doole muy réseau Remi Dee bi parce que boo xoolee ñëpp moo ñu ci lañ kii ci lañ ci lañ ci lañ ginnaaw waaw mhm. parce que ñoo ñu ëpp ñoo ñu ëpp baat ñoo ñu ëpp tam boo xoolee ñun ci lañ bootu boo xoolee ñoom tam ñu nekk di si def kii yu mag di si def ay jéego yu mag waaw pour ñu mën a jàppale migrants yi nga xam ñu mm-hmm. euh, ni comme ni ma ko waxee rek euh, c'est vrai que bette na loolu mais xëy na bu ñu jëloon les devant yaakaaroo ni aussi war nañ mën a mën a mën a bañ a yegg fii ak jafe-jafe bi mm-hmm. waaw xam nga ku nekk xam na ñun suñu état ni muy doxee mm-hmm. ku nekk xam na daal xam na ni muy doxee parce que à chaque fois lu ñu naan médecin après la fekkoon dañuy ban parce que euh, Covid bi avant muy ñëw Sénégal euh, Chine la njëkkee en mhm, décembre. Mhm. fekkoon dañoo prévoir jël matuwaay yu war yëpp préparé wu. xam nga mhm. préparé en conséquence. xam ne kat lu comme ngi Chine te day kii te vol yaa ngi ñëw xam nga migrant ñu ngi foofu du ñëw. affaire mun na mun na jékki-jékki à ah, un bon jour frappé wu nga. te boo seetee comme li nga wax noonu foofu ca Chine ay migrant euh, ay doomu sénégalais ñu nga fa woon. pare woon ndax bëgg a ñibbi si. ñu naan dina ñëw ak duñu ñëw ñu ne dinañ ñëw ñu ne voilà amuñu possibilité amuñu luñ leen mettre en quarantaine loolu aussi ndax yaakaaroo leen ne am na tuuti benn benn benn ñàkk a ak yelleefu ki nga xamante ni mooy tukki ak di ñëw waa fa laa doon ñëw parce que nit nit ku nekk ku jóge sa réew tey jii nga dem nga dem réew jàmm boo amoon la gën a doo jóge sa réew dem réew jàmm da am li nga bëgg mais le fekk nga sa réew réew jàmbur ba fa nekkee tey jii dama dama gis ne yow sa sa njiitu réew war na def la dafa def def la tout protéger la xam nga teg la si dans de bonnes nga xam say ak ak say yelleef nga xam ko ñu respecté ko respecté droit d'art parce que bu mu nekkee foofu en 2000 en en décembre 2019 en Chine bu ñu xoolee ne Sénégalais ñu fa bu ñu wootee euh, ndimbal Sénégal ne pour ñu dem rapatrier euh, ressortissants sénégalais nekk en Chine dañoo waxoon carrément ne gouvernement amuñu amuñu doole boobu te pourtant ah, autant bu ñu ko defoon xëy na amaana kii bi du egsi fii bu ñu ko defoon dem jëli jëli leen ñëw teg un plan de riposte préparé wu en conséquence xam ne kat lii comme mu ngi ñëw lu nekk Chine di wër dëkk yëpp léeg-léeg nga jékki-jékki dëkk benn benn dëkk ni ne am na fa nii wala mun nga préparé daa xam ne xam ne tôt dëkk parce que déjà dëkk yëpp sa sene sa dëkk yëpp nga préparé xam ne tôt ou sa dëkk yi sa doom dëkk yi di nga xam ni ngay xeexee di ngay xeexee daal. Mhm. mais ba bàyyi ba mu ba mu ba mu dóor ba ni jonn moom day day metti te aussi foofu aussi euh, mooy comme li ma wax rek maanaam ak ak yelleefu ñi nga xamante ni ñoo migrants et que ça soit les immigrés ou les immigrés euh, est-ce que bu fekkoonte ni woon maanaam euh, respect bi war ci seen ak ak yelleef tey suñu njiit yi ñi ngi koy def jafe-jafe yi ñu nekkee tey ci doxalinu pandémie bi maanaam ñi ne fii ci bitim biir réew mi di immigré yi est-ce que ñoom ñoom dinañ dinañ jànkuwanteel jafe-jafe jafe yi ñu nekk tey yaakaar nga loolu ndax bu nekkoonte ni woon suñu njiit yi tey jël nañ dañu waroon jël yépp maanaam te ko ci yoon di ko doxalee ndax jafe-jafe yi ñu nekk tey ñoom ci doxalin bi dinañ ko am waaw loolu laa expliqué léegi moom moom que ne le non respect des droits des migrants parce fekkoon dañ ko respecté réellement parce que man dama gis ne yow sa sa doomu sa doomu réew tey fu mu nekk tey da nga xool te fekkente ne français yi tey fekkoon seen doom ñoo nekk Sénégal te nekk dans des conditions difficiles dañuy fexe def le tout fexe ñu rapatrier ñu dem parce que boo xoolee tey français yi nekkoon fi tey ñoom ñoo njëkk a dem ñoo njëkk a seen doom yi nekkoon seen ressortissants nekkoon Sénégal français ñu njëkk a jóg envoyé vol spécial ñu ñu ñu dem dama gis ne tamit boo xoolee ne ñu wax ko daal mais mais am na non respect des droits des migrants mu fi respecté ñu ko réellement Mhm. loolu Abdou Khadre defe naa moom duñ ci duñu duñu toog fii di ko wax nga nga nga di koy seetaan defe naa am na des chartes yoo xam ni comme ni nga ko waxee bi ñuy entamé suñuy waxtaan euh, defe naa am na charte yoo xam ne ak i convention yoo xamante ni moom la ñu teg muy àq ak yelleefu nit ki mais au delà muy migrant bi te malheureusement gisuñu ñu koy respecté ci dëkk bi. mais tout à fait je pense wax naa ko tout au début parce que boo xoolee au-delà parce que le migrant aussi c'est une comme nous hein c'est comme nous euh, qui a des droits et des devoirs yoo xam ne da ko bokk ak ñëpp mais au de ça. c'est une c'est, c'est une couche qui vulnérable. Mm. boo xoolee ki jóge sa réew dem ci réewu jàmbur da ngay néew doole xam nu ma koy waxee ci wolof da xaw tumuranke tellement que ne on a pris pas mal de convention internationale wax naa ko léegi mhm. depuis la convention numéro 19 mhm. sur l'égalité de traitement am na mais aussi boo ñëwee ba 1900 dans les la convention euh, bi nga xam ne c'est pour la protection des travailleurs migrants euh, qui a été ratifiée à New York en 1990 et euh, signé au signé par le Sénégal en 1990 et ratifié en 1999 mhm. mais en 1971 Sénégal on a pris une boo xamante bi ne c'est pour le droit de séjour de d'établissement et de résidence en on a voté une loi donc qui réprime la criminalité transnationale organisée ainsi de suite mais ce qu'il faut dire aussi mooy le respect de ces conventions comme ni ko soxna wate euh, soxna si waxee sànq kat yi mm-hmm. ça pose problème ah parce que quand il s'agit de signer nous sommes les premiers à signer mais quand il s'agit d'appliquer nous sommes les derniers à appliquer loolu ça pose problème. amaana sax du ñu appliquer. Euh, voilà mi ngi noonu donc loolu ça pose problème au Sénégal et ce qu'il faut remarquer aussi mooy au Sénégal nous avons pratiquement une insuffisance dans le cadre de la législation ñaari loi lañ ci am benn bi est répressive et d'ailleurs elle est démodée elle est archaïque donc ce et il y a un document qui a été recommandé par l'État du Sénégal pour définir la protection migratoire boo xoolee ci biir document boobu y a parmi dans les recommandations effectivement on a souligné qu'il y a une insuffisance sur le plan juridique euh, des textes qui protègent vraiment donc ñi nga xamante ne moom mooy les migrants donc de ce point de vue l'environnement juridique ne permet pas effectivement une protection efficace des migrants euh, ça pose si les textes mais évidemment on ne peut pas avoir une protection efficace des migrants donc loolu day laaj vraiment mu am taxawaay bu am solo ci ci état bi fii waaye aussi au niveau communautaire mais su souligner un aspect boo xoolee mais quel en fait quel a été tey lan mooy taxawaayu CEDEAO wala UEMOA ci ci ci migrants yi ci contexte pandémie bi on les a pas kenn déggu leen waaye Alors quand il s'agit vraiment de, de, de, bien de voter des textes, parce que le, on, on, a parlé, on a écrit un peu partout la libre circulation des personnes, des biens, mais il faudrait que cette libre circulation vraiment soit accompagnée par des droits effectifs vraiment au niveau donc des pays d'accueil. Mm -hmm. Et le Sénégal, son cas est particulier parce que le Sénégal est un pays de départ un pays d'accueil et un de transit loolu su ñu ko mm-hmm. mooy dafa nekk réew boo xam ne migration yi moom dafay tulleeg Mali mm-hmm. ndaxte ñëpp fi la jaar am ñu fi toog am ñu fi départ di dem vraiment moo tax problème bu ñu war a jël à bras le corps la mm-hmm. par nos autorités en accord en compagnie avec tous les acteurs. Mhm. pour que vraiment que yéen a ngi doon yéen a ngi doon naqarlu bu baax a baax a baax a baax a baax comme ni nga ko waxee euh, mu nekk euh, loolu nga xam ne ay loi la ñàkk respect bi doon ngeen ko naqarlu di ko naqarlu vu ko yéen sax suñu déggee da ngeen naan ni ko soxna kat yi waxee moom itam sànq mooy ni la migration est un droit pour tous loolu da ngeen koy waxee def ko slogan di ko wëyee. mu ne le projet le projet le projet du la migration un droit pour tous voilà. <laughs> voilà exactement mu nekk loo xam ni vraiment da ngeen ko téye bëgg mu nekk loo xamante ni du du du yam rek ciy wax waaye ci lu ñuy jëfee lay doon euh, mu tombee itam mbas mi daal di ñëw ni mu bettee ñëpp. Hmm? mais itam ngeen gis na ki doxalin bi itam nekk loo xamante ni vraiment ah est-ce que war nañoo waxati sax mbirum migration bay tudd droit ba kay jaarale ci ñëpp vu que nekk na loo xamante ni nii toll nañ ci moment boo xam ni dem amatul dikk amatul c'est vrai que situation bi la ak contexte bi la mais gàllankoor na itam doomu aadama yi ci côté bu baree bari boo xamante ne ni tey loolee ngeen doon xeex xëy na dina xaw a waroo tuuti de. waaw c'est là l'importance c'est là l'importance d'appliquer les textes. Mm -hmm. avant circonstances yi di ñëw. parce que su fekkee ne am nañ des textes bien faits avec une application rigoureuse. Mhm. xañ na bu jotee tey jii peut-être mën na bañ a poser problème bu baax a baax a baax. Mhm. parce que boo xoolee wax cette crise là certes la mobilité. parce que tous les états dañu fermer seeni frontières d'abord parce que il pense que ne peut-être loolu su amul rek. Mhm. cest dire maladie bi dafay dafay dafay. dafay gën a yokk en réalité je peux dire que crise de mobilité. Mhm. donc loolu nag dafay tax daf ñoo war a yee ba tax ñun question de la migration. Mm, quand même ñu ñu ñu ñu xoolaat ko baax a baax comme ni ko Badara di waxee que l'Afrique soit l'objet mhm. ah et le sujet voilà xaw ma xaw ma moom na la ko ci waxee c'est vraiment de réflexion sur les questions migratoires la concernant ñu jël ko à bras le corps ñu xam ne suñu mbir la waxtaane ko tëre ci ay charte yu leer ba pare am yéene ak pas-pasu doxalee ko noonu ngir li nga xamante bi ne vraiment euh, day aar migrants yi encore une fois Euh, soxna kat yi defe naa li nga xam ne moom la ñu jagleloon ci waxtu bi moo ngi nii di jeex di ñu di ñu di waxtaan bi neex na euh, mais euh, waxtu bi daf ñuy xaw a tënk tuuti alors dañuy jëm rek ci li nga xamante ni xëy na mooy njeexalu ci émission bi par rapport à la situation yow lan nga yaakaar ne fi ñu toll nii tey moom lañ war a mën a fexe def ko ba nga xamante ni ni jafe-jafe migrant migrant yi même su nekkul ci ci ci ci gestion pandémie bii nii mais mu nekk couramment loo xamante ni nii dañuy dañuy dañuy dañuy appliquer li nga xamante ni mooy texte yi li mu wax respecté loi yi ba nga xamante ne ni jafe-jafe du am ci ñooñee di migrants yi. waaw damay rejoindre un peu sama naataango Abdou lu mu wax rek parce que boo xoolee nee na convention yi parce que amoon na convention CEDEAO boo xamante ne c'était ratifié en juin 1979. sur la libre circulation des biens et des des mhm. mais que respecté ko. Mhm. parce que dañ ko wax te boo xoolee tam si Afrique pays Afrique boo xoolee ci la ci la kii daal mais. Mhm. boo xoolee respecté ko daal parce que da xool tey jii tey da ñëw tey Sénégalais jii pour war a dem Gambie tout day nekk problème boo xamante ne pour nga dem ak pour accéder à Gambie day nekk un problème. am na aussi le pacte de Marrakech tamit boo xamante tamit gis nga comme ni ko waxee rek dañuy signé yomb na. Mhm. mais appliqué appliqué luwaay moom moom mooy jafe. Mhm. dañuy signé bi dañuy appliqué. effectivement di wax ne tamit comme li nga wax rek lu ñuy war a yi uh-huh. nga xam annoncé nañu ko déjà. am ñi nga xam mhm. commencé ubbi seen frontières yi. bu ñu ubbee frontières yi ba yombalal yombalal migrants yi dem bi ak dikk bi. tamit teewul tamit respecté tamit respecté barrière mesure nga xam moom lañ teg nga takk sa masque di ngàllaay sa gel mhm. di kii buñ ñu ñëwee tey par exemple fagaru daal comme ni ñuy waxee daal waa fagaru waa mm-hmm. Mm-hmm. boo bu ñu ñëwee tey boo bu leen jëlee tey extérieur indi leen Sénégal tey parce que comme ñu ngi jooy ne dafa metti bu ñu indi leen mm-hmm. bu ñu leen indee tamit mettre leen en quarantaine wala indi problème parce que ñi nga xam ne leen jël indi leen mettre leen en quarantaine dañu opposé wu carrément dañuy bañ te loolu yëpp pour aar leen la daal uh-huh. waaw donc kenn ku ci nekk que ça soit du côté peut-être bi ñi nga xamante ne nii ñooy njiiti ak ñi nga xamante ne nii aussi ñoom ñooy soit que les immigrés wala les émigrés kenn ku ci nekk xëy na li ngay wax foofu mooy mu def waree fam waaw mu def waree fam njiit tam jàppale leen baax tam appuyer leen leen daal appuyer leen financièrement surtout. Mhm. soutenir leen parce am na benn kii c'est pas pour faire la pub. mais y' a House of Hope qui appuie les migrants impactés par le Covid. House of mhm, Hope mhm, bu ñu leen leen di leen kii daal. effectivement defalaat leen revenir loo waxtaan leen loo. loolu wax ñu jàppale leen rek parce que tey migrants yi tey boo xoolee tey. ku sañoon doo génn si dëkk dem uti beneen effectivement migrant tam mën a nekk du question uti rek mën nga nekk da dem jàngi uti xam-xam mhm. wala nga dem liggéeyi mhm. wala nga dem faju sax tam mën a nekk parce nga dem faju ji nga toog mhm. ñu jàppale leen daal yombaleen leen yëpp daal ba lépp yomb mbaa nga ñëw fii itam jàng si mbaa nga wut si <laughs> waaw moom pays de la teranga la bi <laughs> na sénégalais moom dëgg yàlla moom ah mais man moom man moom pays de la teranga man moom ci ndimbal gi ñu naan ceeb ak diwlin gi ci laa bàyyee sénégalais ndax jàpp ñu ni <laughs> kenn ku jógee bitim réew tey jii ne fi ñoom Abdou Khadre ngi ni seen quartier ña jógee bitim réew ñëw fa seddu ñu leen ca ceeb ba xaw ma nag loolu état bi loolu moom lu ma yóbbu la ba ci kaw parce que dama gis ne tey jii tey comme ni ko waxee sànq rek mhm. ñu jógee tey Guinée tey ñëw Sénégal dañu contribuer à l'économie à l'économie ndura sax à l'économie du pays à l'économie du dañu dañu contribuer daal parce que nga mhm. xool tey producteur bu nekkee tey di jaay gerte jaafam tey jii ah. tey bénéfice yu muy am tey da koo jëlaat mu ñëwaat du uh-huh. ah, te bu ñu leen xooleewee ñoom ñun bët bi ñu xoolee ñi fi ne defe naa dina nekk loo xam ne lu metti lay doon te bu ñu waxee mbirum migration rek wax migrant ki dem la ak ki nga xam ne moo fi ne ñoom ñaar ñëpp la parce yow tamit euh, boo jooyal sa ka dem rek xamal ni am na keneen kuy jooyal keneenam koo xam ne mu ngi fii yow ci say say tànk donc mu nekk yoo xamante ni lu ñuy war di bàyyi xel la Abdou Khadre donc par rapport à la situation aussi euh, place bi nga xamante ni euh, moom la migrant yi war a am ci gestion Covid bi defe naa sax sànq na am loo ci laal muy respect que ça soit euh, muy wu loi yi ak règlement yi nga xamante ni nii moom war a comme ni ko kat yi jeexalee léegi waaw je pense que mm, ni ko sonn kat yi waxee sànq rek nga wax ko noonu li ñu war a def tout d'abord mooy accélérer si li ñuy wax ne mooy l'unité africaine say euh, surtout dans le cadre de la CEDEAO mu nekk euh, benn communauté sous-régionale nekk une union solide parce que euh, man kat yi on a fait Ramatoulaye on a fait on a été témoin donc ay ñoo xam ne ay ay ay immigré yoo xam ne dañu dem di bind ji pour l'aide alimentaire ñu laal nañ seen carte d'identité ñu ñu laaj leen seen carte d'identité donc ce qui fait que sénégalais même sénégalais bu indi seen carte d'identité du ñu bi mais numéro dañ lay wax nga dem indi sa ancienne carte d'identité pour numéro Sénégal bi ci nekk wala ñu tourné carte d'identité bi jël numéro Sénégal bi bàyyi numéro CEDEAO bi mais loolu cela veut dire kon c'est-à-dire ñun suñu mentalité sax c'est-à-dire foofu. effectivement ce qui vraiment mu nekk loo xam ne je pense leader yi war nañ cee gën a travailler waaye aussi acteurs yi xam ne suñu bëggee tey un marché commun sur le plan économique mais il faut d'abord qu'on soit euh, ñu am une unité donc sur le plan social mm-hmm. d'abord ñoo xam ne le Guinéen mm-hmm. il est un citoyen de la CEDEAO mm-hmm. comme le Sénégalais il est un citoyen de la CEDEAO je pense suñ ko ko defee noonu dina gën a yomb benn bi mooy surtout mm, éveiller et sensibiliser les migrants parce que ñu wax leen ne ils des couches euh, yoo xamante bi ne très vulnérables donc looloo waral sax dans le cadre de notre programme on a fait des messages de sensibilisation. Mhm. di leen wax ñu respecter les distanciations physiques. Mhm. Euh, di takk masque. di mhm. éviter le maximum de déplacement comme ni ko les autorités sanitaires wax euh, santaane. parce que ñoom couche vulnérable lañ. donc loolu réseau bi je pense ngi ci def ay images donc mi ngi ci def sensibilisation. Euh, ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ñëw même dans le de ces émissions là. certainement peut-être espérons que ne dinañu gën a dégg bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. leen mooy di fàttali rek ne le des étudiants pour la migration dafa nekk un cadre d'échange et de partage mhm. boo xam ne c'est entre étudiants qui sont passionnés par la question de la migration mhm. étudiant boo xam ne foo mën a nekk que tu sois guinéen malien égyptien Euh, tu intéressé tu euh, en fait vraiment tu es bienvenu. leen di mooy li ñu ko waxee rek euh, bokk na ci euh, objectif projet muy créer un cadre d'échange faire promouvoir une bonne éducation migratoire. parce que mhm. comportement yi ñu am yëpp par rapport aux migrants. c' mhm. parce que nous avons pas une bonne éducation migratoire mhm. waaye aussi surtout ni ma koy waxee créer un cadre d' échange comme lii ñu toog waxtaanee mbir mi parce que ñëpp a ci bokk parce que jusque là aussi les étudiants ne sont pas des acteurs clés euh, dans le domaine de la migration et il pas mal d' étudiants aujourd'hui ressortissant d' autres états qui remercions encore hein, pour euh, la radio AFFM. Uh-huh. mais aussi la fondation Radio Alexandre notre partenaire. Uh -huh. mais aussi remercier Cathy et toute l'organisation MIGDEV. vraiment uh-huh. pour leur disponibilité. Uh-huh. et tous nos partenaires et tous les acteurs. ci biir Covid bi am ngeen yeneen perspective euh, bu weesuwee émission radiophonique yeeg vidéo bi nga xam ne réalisé ngeen ko. waaw tout à fait parce que on est en en tout cas de cogiter parce que c'est très difficile de faire des activités dans le cadre tout ce qui est regroupement mais on est en train de faire vraiment des rencontres virtuelles des échanges virtuels ainsi de mm-hmm. suite effectivement donc pour mieux sensibiliser ñi nga xamante bi ne ñoom ñooy des migrants. am na solo nekk na loo xam ne donc lu am solo la kon ñu leen di jaay jëfal bu baax di jëfal Abdou Khadre mbay nga nekk le coordonnateur du réseau des étudiants pour la migration jaajëfal itam Mame Kati Fati moom mi nga xamante ni itam mu ngi jugee ci MIGDEV tey jii ñoom la ñu doon dalal ñu doon waxtaanee wàllu migration ak pandémie du Covid 19 lan mooy place bu migrants yi ci biir gestion bu pandémie bi nga xam ne ci lañ nekk amoon ko fondation Rosa Luxembourg di leen wax ni comme ni ñu ko defee noonu ne euh, xool nañu ba xam ni comme xeex bi toll nañ ci xeexu communautaire comme rajo communautaire yi bien vrai que depuis le début ñoo ngi ci nekk ànd ak ñi nga xam ni mooy nguur gi ci xeex bi saay su ne subaa ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi ci kon defe naa euh, réseau des étudiants pour la migration fondation Rosa Luxembourg MICDEV bu ñu ñëwee rek lëkkaloo ak rajo communautaire yi defe naa xeex bi nga xamante ni ak voix bi ñu bëgg a dinañu mën a fexe ba fa nga xamante ni foofee ngeen bëgg combat bi egg fa ñu yeggale ko fa kon tey moo taxoon ñu leen doon dalal doon waxtaanee ponk yooyu euh, di wax ni nag des na yeneen émission yoo xamante ni euh, dinañ ci am yeneen tem ak yeneen invité waxtaan toujours ci Covid bi ñu nekk ak euh, migrants yi nga xamante ni aussi seen taxawaay wala seen doxalin bi nga xamante ni moom lañ war a am donc mu nekk entre autres ay ay ponk yoo xamante ni des na fi yekk i ay bés a la ñu bëgg a dem donc ci kàddu gi Ramatulaay Jéen moo ci nekkoon ci Afia FM 93 point 0 ñu leen di jëfal di leen jox dig daje beneen émission yeneen i gan ak euh, beneen ponk incha allah ci yeneen i bés. feebar baa ngi ak li mu àndal dalay faat waaw. nañu ànd xeex ko mu jeex.